dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyanto diggante Aminata Touré ak Macky bu doon ab sëy la ci mën na ñoo wax ne sëy tas na tasar sëy ba nay tas yéen kaay gi di réew ko di jaay nee nañ ñi mi di président Macky Sall ni ki démb lu ko yëkkul daf ko fàtte moom mi mi démb janoon tas ko do xabaar yi wax na li nga xam ne moo ko boolee ak Macky Sall na mu gudd gàtt wàllum ñettalu mandat bi bi nga xam ne ñoo ngi ci woo ci la ko Macky Sall daal di woowee téléphone daal di koy wax ne nag yow laa digoon ngir na nga jiite assemblée nationale waaye nag dañu koy soppar ñi Aminata Touré na ko waa baax na Mimi nag nee na loolee lépp nag li ko waral mooy ñàkk ànd gi mu ñàkk ànd ci ñetteelu mandat Macky Sall moom Mimi ndax nee su àndoon ci ñetteelu mandat jamono ji mooy nekk njiitul assemblée nationale waaye nag moom Mimi nee na lam ca waxoon ba pare wax na ko ndax 2012 Mimi Touré lu jëm ci ñetteelu mandat Abdoulaye Wade ba am lu toll ci fukk ak nan laa mën a wëlbati ko maanaam di jàppale Macky Sall ci lu jëm ci ñetteelu mandat loole munta nekk te Macky Sall moom ci boppam 2019 ci réew mi ak ci bitim réew fenn fu nekk wax na fa ne 2019 bu ñu ko falee mooy nekk ñaareel ak mandat bu mujj Ismaïla Madior Fall mi nekk ministre justice jamono ji maanaam wax na ko ba tey juridiquement moralement maanaam ñetteelu mandat Macky Sall munta nekk waxi Aminata Touré la te nag ñi nga xam ne ñooy la ñu ko mën a nangulee Macky Sall 2024 Aminata Touré nee na Macky Sall ci boppam 2024 lay jóge ci bopp réewum Sénégal Macky Sall quittera le pouvoir en 2024 Sud Quotidien Aminata Touré daat nay libéré ci biir Benno Bokk Yaakaar yéen kaay gi di Les Échos Aminata Touré nee na xelam jamono ji mangi ci élection présidentielle 2024 yéen kaay gi di Rewmi Quotidien Aminata Touré léegi nag nekkatul ab député boo xam ci Benno Bokk Yaakaar la bokk waaye nee na député la moom Aminata na ci Benno Bokk Yaakaar loolu nag a indil xam na ñooy waa Benno ndax mën nañoo wax ne Benno Bokk Yaakaar amatuñu majorité ci biir Assemblée nationale mbir yi nag ma ngi gën di gëllugóose di compliqué ci Macky Sall ginnaaw Aminata Touré ak Abdoulaye Baldé ak ñi mu àndala jigéen ñi nee nañu ko Abdoulaye Baldé génnal ci Benno Bokk Yaakaar ndax Macky Sall respecté wu la yéene kaay gi di l'info Aminata Touré nee na Macky Sall mii nga xam ne jamono ji bu passé nag wax ji xam ne waxoon na ko ne nii moo nekk njiitul Union africaine dafa a joxe exemple bu baax Macky Sall joxe exemple bu baax nag respecté li nga xam ne mooy constitution bi waaye nag Macky Sall Sall dafa war a respecté kàddoom maanaam respecté sa parole Macky dafa war a respecté yi nga xam ne jox nañu ko lépp kàddu yu Aminata Touré la ba moom Mimi Touré nee na nag Macky na ko leer na 2024 lay jóge ci bopp réewum Sénégal yéen kaay gi du source Abdoulaye Diouf Sarr moom nag nee du nekk daal ab répondeur ci koo xamante ni nag sërëm la bi ñu ko laajee ci Aminata na nag du moom Abdoulaye Diouf Sarr nee na 2024 décision yi yoo xam ne maanaam yu personnel lay doona waaye yu libre lay doona ak yu indépendante yéen gi de la Réveil Quotidien xëy di xibaar naan ñoo Aminata Touré jamono ji jaxase na carte waa Benno Bokk Yaakaar yéen kay gi de la sa ñu xëy fekk fa Nafi Diallo bu Parti démocratique sénégalais nee na Aminata Touré la waaye nag Aminata Touré maanaam tappalekat la yéen gi di Direct News jigéen ñi nga xam ne ñoo fare ci diwaanu Kaolack bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñoom nee na ñu bëggatu mi nga xam ne dañu ko tuumal lu jëm ci wàllum viol benn xali bu jigéen bu tudd Adja Jare Thiaw moo ko tuumal lu jëm ci wàllum viol gendarmerie bu Wakaam tey jii dinañu leen dégluwaat ndax dañu leen a convoqué bi di Libération nee na nag am na benn seede bu jigéen boo xam ne moom nag dafa gën a dugal ki nga xam ne mooy Kalifone Sall ndax li ñu koy tuumal xale bu jigéen bi nee na Kalifone Sall defoon na ko ko waaye nag moom Kalifone bi mu jàkkaarloog enquêteurs yi yu bari moo am ci kàddoom viol la ñu ko tuumal waaye nee na violewul xale bu jigéen bi waaye nag dóor yi na journal bi nee na certificat certificat médical bi daal nay dëggal ne xale bu jigéen bi maanaam dañu ko firnaal xale bu jigéen bi ci l'observateur nee na Kalifone Sall dafa xotti li nga xam ne mooy ab silibama xale bu jigéen bi nee na Kalifone Sall dafa ubbi ay tànkam jël loxooma daal di koy pénétrer ba pare nag téye weene di ko nàmp journal bi nag nee na Kalifone Sall moom tim nee na xale bu jigéen bi moo ko wax na ko man lesbienne la ba pare jël vingt-cinq mille ama loolee moo tax Kalifone nee na daal di jël ab téléphone ama yéene kaay gi de la Soleil nee na batalo joolaa tey ji la vingt ans ba léegi naqar wi ak tiis wi wéy di des yéene yéenekaay gi du sunu làmb xëy duñu xibaar naan ñu choc des lebo combat Lac Rose ak Quench taxawal nañu ko